mbooloo mi kenn ku nekk ci turam ak santom di gërëm yàlla ñu ñu bokk bind di gërëm suñuy waajur ji gërëm monsieur le ak su préfet ndax lii tey ji ñu nungu ko ñëw fi xañ na la waaye xam naa ne ñëwee nañ fi ci xol bu sedd guy beneen mbir mi ci desit muy def ko ci ndigalu feebar bi yàlla dogal mu am président bëgg du sañoon tey jii lépp mu génn ci réew mi mu joxe ndigal képp koo xam ne tànn nga sa morom nga jàppale ko ci loolu mu joxe euh, xalifa général mu Mouride loolu la wax ñun nag ci dee dañuy béy lu ñuy béy suñu wéewu tànk la fii ñu def forage bi moo teen bi suñu yaay doon rootee motul trois trois euh, dix mètres kon yàlla defee ñuy foraat dara ba war fee mën a def forage duñ ko jëlee dara dara lu dul sant yàlla suñu borom ndax yàlla moo ko doxalee noonu ci kaw loola maanaam mbir mii dañ koy defit daanaka kon jàngale ndax dañ fee yor ay doom yor fi ay rakk communauté rurale bi dafa yaatu région bi dafa yaatu kenn ku nekk lay feeñ ci yow ëllëg yàlla suñu borom rek moo ko xam ñu xalaat na lii ñu def xalaat na baax na am njàngale la moo tax ñu gën koo wone fii du neexoon toog dakaar jël suñuy sec engagé wu yóbbu ko ci télé bi ak journal bi foofa ñëpp lay xam ku duñ xam sax foo cosaanoo waaye li tax ñu ñëw ba fii di ko fi defee am njàngale ci xale yi ci tolloogun ëllëg pour ñu mën a jël exemple ci yenn yi ndax boo xoolee ceeb bee ñu joxe moo tonnage bi yëpp doo ko dee xool nu mu bon bon moo li mu war a àndal ëpp na 15 millions forage amagul limite fee parewul waaye yéen a ji ëpp na loolu ci gox bi xalaat na lii nañ gisagun waaye duñ ñaanalee loolu gën a continuer yeneen action ak yeneen action war dafee fee mën a amaat ci euh, raison bi ak sous région bi yàlla na ko yàlla mottali ci barke Cheikh Saliou dañu ñëwoon ginnaaw bi ñu réceptionné léegi ceeb bi nga xam ni moom la sëñ góor a may waa njéegoom fii ñu taxaw nii bërëb bii lii ngeen gis nii forage la forage la boo xam ni sëñ góora mi taxaw li nga xam ni moom moo mayoon léegi ceeb bi waa njéegoom ci cadre xeex jàngoro bi yemul foofu dafa jël dooleem jël alalam jël kàttanam ñëw bënn fii forage xam nga ni tubaab daf naan l'eau est source de vie ku la jox ndox jox na la lu ne kon góor yemul ci dundal nit ñi góor dundal na nit ñi wëgg nit ñi wëgg jur ñi ku la jox ndox nag mooy kaay set lan lañu wax ci jàngoro ji kaay set kon góor a setal nañu dundal nañu konte waa njéegoom yoral nañu góor a jëf encore une fois ci suma tur góor mu ngi nii taxaw ma di ko jaajëfal bu baax a baax a baax ci li nga xam ni mi ngi koy def muy ay action yu am solo yoo xam ne mi ngi koy def di jël ci alalam di ko dugal ci ay mbokkam dellu di ñaan waa njeegoom góor benn nit wolof def ni lu kenn mën fukk ko ko daq naam doole yemul naam wërsëg yemul mais bu kenn xeeb lu nga am ndaxte olof dafa ni mbooloo mooy doole maa ngi dellu encore une fois di gërëm sëñ Gora Ngom di leen ñaan yéen waa Njeegom yéen ñi nga xam ni yéen lañu ñu bënnal forage bi bis bi ñu demee ba réceptionné liggéey bi nga la na ngeen ko yor ci anam yu gën a rafet encore une fois ñi ngi sant ñëpp. waaw gox bi dafa amoon euh, jafe-jafe ndox jafe-jafe yi nag euh, lu yàgg la euh, que. dëkk bi ñàkkoon na ndox population bi ànd ak góor di ko mettitlu bi ma agsee ci euh, bopp commune bi boobu communauté rurale la euh, ma gaawantu indi fi ndox mi mais bi ma indee ndox mi muy normal góor dafa ñëw dugal loxoom dugal ndox ci biir kër yi yëpp bi nga xamee ne nag dem nañu ba ay weer ci ginnaaw problème mu ndox am parce que xam nga euh, forage yi dañuy yenu lu ñu àttanul ñu jàppoon ne war nañu ko mën a régler ma ànd ak seneesu dëkk bi ngir nu régler ko ma jund ay tiwo et et cetera nu gas pour régler ko mais yàlla dogal loola sottiwul alors ci la góor jël nag euh, décision euh, ne ma day gas forage pour waa dëkk bi mën a am ndox donc ci loolu la la ñu waxtaanee gis ki nga xam ne moo war a gas forage bi pour mu gas forage bi ba yàlla sottal forage bi forage bi mu ngi ci 41 mètres. 32 yëpp ndox la 11 yi rek moo amul ndox donc dëkk la euh, forage la bu xam ne mën na yor Ndié mais mën na yor village yi nekk ci ci ci ci wetu Ndié encore mu engagé itam pour tabax château d'eau château bi itam gis ngeen ko moo nekk ne ci suñu kanam commencé nañu pour defar ko donc kon damay remercier le directeur de xel Basse ci turu la commune de Ndiéyène Sirakh ci turu population wu Ndiéngom euh, mbokk la mais mbokk mu bokkoo ay bokkam la donc li ko yàlla wërsëgal mi ngi ko indi pour bokk ko ak ay bokkam monsieur le directeur général donc maa ngi lay remercier maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla yokk la. sama waay daal euh, sant yàlla euh, gërëm yonent bi te dellu sant aussi itam moom mi nga xam muy góor a ngoom mi ko def suñu rakk la suñu lépp la parce que nit la koo xam ne kii la muy def moom seetu ci masam muy suma foo def ngir yàlla def ko aussi itam fu ma ko war a defee. ndax fi mu juddoo fi la yaroo fi la màgge te lu mu fi amit su yobee yàlla nekk ci dëkk bi ci dëkk bi la débuté pour mu dem def ko yàlla def na la mu amoon si te bokk noo ko ak mbokkam lépp loo xam ne luy soxla mbokk yi lépp loo xam ne luy bëgg-bëgg mbokk yi taxaw na itam na mu war a taxawee te itam lépp loo xam ne luy sunu naqar itam lu mu ci xam itam fajal noonu ko te bii mu indi fiire yàlla mi bind donc moo ko mën a fay waaye du keneen moo ko mën a fay parce que nit am na lu ko ëppale te taxul ñu def ko ci ay mbokkam ginnaaw moom la mu am la mu tuuti ak nu mu bare bare bare nee na lii bala ma ci lekk dara wala def dara sama sama mbokk laa koy bokkal toola def na ko ñoom nag yàlla rek moo na ko mën a fayal mais lépp lu ñu bëgg a wax mënuñu ko ndax suñu xol fest teg na parce que li mu teg tegal nañu coono parce que suñu jigéen dañu daal jóg fii di wuti ay charrette di dem di wuti ndox feneen kon nag étant donné que ne lii moom def na ko fii ñun suñu xol sedd na seddaay boo xam ne bii nga xam ne loolee nga jigéen ñi daa def di ko wuti ak ñu daan ko teg ay charrette di di ay euh, di bëgg suñu jur loolu lépp teggu na tey kon yàlla yonent ak moom mii ko def moom moo nu ko def kon nag lu ñu def du ko toujours du ko ñaanal guddi ak bëccëg lépp accès na fi lépp affité aussi nañu ko waxee itam na ñu ko jàppee itam wax ne aussi itam bëgguñu affaire mbooloo bëgguñu aussi itam lépp lu ñu mën def daal nañu dispersé wu xam nañu ko war a defee bañu nekk mbooloo moo xam ne mii daal mu ñu ki parce que mbool yow amatu fi parce que ci béy ci dans la dans la même date ci ci 11 avril ci la ñu war a def suñu date bi nga xam annuel lañu ko daan def daan ko ñaanal dëkk bépp ak ko ñaanal suñu waay yu fi jóge loole itam loolu yàlla def na teggi ko ne fomm na itam da amatul defatul mais du tee aussi itam lañ ca daan def ci lu baax itam daan ko dig bu te kilifa itam ku ci ne suñu xel nga ci di ko def waaw ñoo ñoo ngi ci sant yàlla bu baax itam ñun ñi itam ñoo ngi sant aussi waa dëkk bi nga xam ne itam ñoo jógee waa dëkk environnement yi dëkk fii ñoom it ñoo ngi leen di sant bu baax ñoo ngi leen di gërëm bu baax it ndax mooy quelques dëkk yoo xam ne ñoo ñoo entouré euh, dëkk bi fi tel que Njuufeen na ngi fi euh, Daaro ngi fi Ndongeen na nga fi Jokk la nga fi Njaxoo ngi fi ak dëkk ku dëkk yi nga xam dëkk environnement daal yoo xam ne après 15 kilomètres de distance yoo xam ne yii forage bi dina ko mën a alimenter ñoo ngi sant di gërëm. voilà je m'appelle Cheikhna Amala Gaye je suis le de G16 forage. voilà forage bi euh, bon euh, j'ai interpellé par euh, dañ kii moom a woowoon euh, le maire ak euh, monsieur Gora Ngom de de Xelkom alors donc euh, ils ont dit que seen priorité fii moo doon ñu régler problème ndoxu dëkk bi. alors bi ñu ma woowee ñu def suñuy étude ñu xam ni fii euh, am nañ fi expérience parce que gar nañ ci ay forage donc euh, fii nappe calcaire yi bëri na ndox biñ ñëwee vraiment traîné wuñu dañ ñëw en deux jours ñu réglé problème boobu réglé forage bi gas ko alors mu nekk forage boo xam ne bëri na ndox trop parce que diamètre bi déjà trois cent millimètres la et profondeur bi sa fait ça va euh, ëpp na quarante donc dugg nañ lu baree bari ci calcaire yi sa di dire am nañ ndox soo xoolee suñ koy pompé même du am rabattement maanaam ndox mi du wàcc mën nañ ko pomper à trente mètres cube heure soo xoolee du wàcc un mètre donc soo xoolee loolu soo ko soo ko calculer da xam ni forage bi am na capacité lu ëpp cent mètres cube heure te cent mètres cube ëpp na ci village bi donc mën na jox aussi yeneen village yi nekk ci côté bi mën na leen euh, canaliser ndox mu dem ba foofu. ndox mu ndox mu neex la def nañu analyse bu ndox bi vraiment amul benn benn. Euh, cafka xorom wala leneen ndox mu neex a neex la bu bari wax dëgg yàlla.